am ces temps d'année euh, euh, longévité boobu nga xamee ne am nañu ko. Mm. Euh, ci mariage yi loolu nag defe naa ne foofu la ñuy njëkkee ah dañuy dem seeti maman Dak. waaw. Mhm. bala balaa ñuy dem seeti maman ndax xam nga peccum liir su neexee tamit nday jaatee ci wagg yi mhm. faaw ñu gërëm bu baax a baax sponsor yi nga xam ne ànd nañoo ñoom ci mhm. liggéey bi parce que ñoom ñoo ñuy dooleel ba ñu mën a defar plateau bu yanj bi ñoom ñoo ñuy dooleel ba ñu mën a joxe ay cadeau ci couple yi nga xam ne moom la suñu euh, ndaw yooyu dem seeti donc faaw ñu remercier leen bu baax a baax ñu ngi remercier one x bet mi nga xam ni parier et gagné ñu ngi koy remercier a parfum bi nga xam ni moo di Love Me le parfum de l'amour by Home Tech Cosmetic waaye di remercier bu baax a baax a baax CSB Samsung Store by Jili CSB ñu ngi koy remercier bu baax a baax les roses d'Antoine euh, nga xam ni fleuriste la euh, ku wax Saint-Valentin wax li nga xam ne moom moo di fleur euh, donc tey xam naa ni bëri na ñoo xam ni arrosé nañ leen ak i fleur tey boo xoolee tamit suñu plateau bu yanj bi xam ne tey ñu ngi digg Inde ñu ngi ci capitalu Inde euh, loolu lépp it nag euh, fleur da ko waral et puis fleur dafa bëri lu muy def ci doomi aadama mm-hmm. fleur dafa bëri lu muy dundal doomi aadama ndax li nit di dund da koy jox fleur fleur daal di koy jox lu muy dundee kenn ku ci nekk mu nekk échange mm-hmm. boo xam ni euh, nit ak la muy dundee mm-hmm. ba Chic Bay jaara waaye di gërëm bu baax a baax tamit Guèye tex mi nga xam ne mooy sunu yëf ñoo ñooy sponsor yi nga xam ni ñoon ànd nañu ak ñoom ci euh, guddik mbëggeel gii di 14 février mën nañ dem ci seeti suñuy ndaw yi nga xam ne demal nañu ci euh, différents couples yooyu. mi ngoog sponsor yooyu la àndal pour bëggal leen dañu daal di àndandoo ak euh, maman Ndak mu yóbbu ñu ba Kër Mbay Fall ñu dem seeti couple boo xamante ni ils ont fait 30 ans de mariage 30 ans de mariage nag boo ko waxee xam naa ci xale yu bëri yu. 48 de mariage. de mariage waaw parce que mook aaw bi. Euh, sëy nañu 48 ans laata muy takk ñaareel ak ñetteel waaw 48 ans de mariage donc dañu dem xool euh, euh, année yooyu yëpp naka la ñu ko gérer est-ce que c'était évident ou pas nañu dem xool ma Ndak di sur le plateau. suñu mbokk téléspectateurs yéen ñi nga xam ne yéen a saxooli satan la Sen TV saa su nekk su événement ñëwee rek daf ciy appati touche bu bees tax boo xam ne Sen TV ngeen koy amee ci Saint-Valentin bi nag tey ak ni sëy mel ni mu sacré ak li ci yàlla wax ñu demoon seet tey couple boo xam ne am nañu lu mat 30 ans de longévité ñu koy seeti di waxtaan ak moom ci lan moo war a loolu ak naka lañ def ba egsi fii muy njàngat loo xam ne ci daw tey jamono tey kenn ku ne war na ko déglu pour mën ci tirer leçon gis sëy yi ni mu gaaw a yàqoo ak fi xale teg sëy léegi loolu la ne di te léegi ci laa Sen TV allah na nga xam ne dañu nekk ci bisu mbëggeel ñu koy wax Saint-Valentin ñu ñëw fii kër mbay Fall cité Saba fekk fi El Hadj Birane Diouf mu toog macha allah ak ay soxnaam ñu koy nuyu di ko wax El Hadj Birane egsi ci jàmm ñu ngi lay nuyu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ajaratu ndaaj maa ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay di kontaan ci déplacement bi nga déplacé ñëw seet ma di sant tamit. yàlla julli ci yonent bi sallallahu sallam di gërëm sama ñaari wajur di gërëm it xalifa général de Tidiane sëñ Babacar Sy Mansour di ko ñaanal suñu borom tabaaraka ko taala yàlla may ko wér ak wérle yàlla di ko may jumaa ji nga xam ne si moom la commencé muy jumaay maamam ji yàlla na ko eggali jàmm ak salaam ba dinu ci jiite ci dara yonent bi di sant bépp xalifa généraux bu nekk ci réew mi di leen ñaanal yàlla yàlla may leen jàmm dafit jàmm ci suñu réew mi ndax ñun jàmm rek lañ bëgg jàmm rek moo nu soxal ah loolu passé tamit ajaratu ndaag maa ngi lay nuyu di kontaan ci yow trop yàlla na yàlla may la sa liggéey barkeel te njaboot gi barkeel yàlla may lu wér ak benn Muhammad Rasul age bi daan tey macha allah maa ngi la fekk nga toog ak sa ñaari jeeg ma bëggoon rek nga nga présenté ñu wax ñu ñi nga toogal ñan lañu ak lan lañ ci yow kii kii kan mooy kan kii kii mooy kii waaw waaw kontaan naa ci wax ji dinaa la présenté bala maa jëkk wax dara damay jëkk a wax sama aw ba ci Tiwaawan. parce que moom laa jëkk a takk yàlla dogal na nag nekku fi ma nga Tiwaawan. maa ngi fii waaye mu nekk koo xam ne si jigéen ju baax la ju ma muñoon lool lool lool lool. Mm-hmm. ah ba mu fu déggee tamit nag may sant kii it mooy sama ñaareel. moom it nit ku baax ku yaru ku ma déggal muñal ma kii tamit di sama ñetteel. yaru lool baax lool muñal ma kenn ku nekk nag ak man ak moom ëpp nañu vingt ans kee am na nañu quarante huit ans dañuy kenn ku ci nekk ëpp nga vingt ans sama diggante ak yow waaye dara mës a ñaaw. léegi nag comme présenté nga ñoo xam ne aw bi nekk fi mais ñàkk fay nekk du tee ñu boole ko ci waxtaan wi. parce que moom moo war a coow lii mooy aw buuru këram. macha allah te kër gu nekk ci kër la jógee. nga jógee foofu ñëw fii jël fii day jaga teg ci ndey. macha allah laaw la cat ma bëggoon la laaj rek âge eh, ñaata at sëy ngeen def yéen ñii ñaata at mariage man sama aaw bi ma ko takkee ak léegi 48 ans la mhm. masta fay dem seen kër waaye nag li waral loolu mooy dañ koo yar te yar lu am solo la mm. yàlla dogal benn jigéen bu nekk bu benn bu ñuy wax mati ndaag yar ko mhm. ñu yëkkati ko jox ma ko dañ mhm. ma ko joxee ba fii ma toog di wax ak yow yàlla sunu borom dogal na masta fay ni maa ngi dab sama dab yóbbu sama kër bàyyi masta am di mhm. ko takkee tamit suñu borom tabaaraka wa taala dogal na meluma woon nii jamono booba wax dëgg yàlla ci la gënoon a metti waaye def koo muñ jéggal ma toog fi ko ndeyam ak bàyyam def bëgg sama ndey lool ndax jabar yi ma am yëpp moom képp moo ci fekk sama yaay yàlla dogal na ñii kenn ku ci nekk ma lay takk sama yaay génn na yi mhm. moom rek moo ci fekk sama yaay mhm. ah yàlla suturaal na ko tamit wax dëgg yàlla am naa man njaboot macha allah taawam moo ma yóbbu màkka moo ko yóbbu màkka ca jii tamit ci la ñaareel bi dem na màkka te toll na jamono boo xam ne si te tax muñ rek ay dëgg. Mhm. toll na jamono boo xam ni sama saana topp ci man yore leget ak bitéel ma jëm ak moom marché. Mhm. dépense nekk sans sama demee ne ko toogal fi ma lijjanti dépense. ca boobu jamono ca boobu jamono. mu toog néeg la. mu toog néeg ma mu toog rek néeg mhm. loolu jaar nañ ci maag moom. marché dérangé. mu toog néeg ma. ba yàlla may ko tey mu am njaboot fa tabarakallah macha allah ay goroom a ngay daagu ci kër léegi bëgg naa laaj tam ñi nga xam ne ngeen toog tey seen diggante ëpp na fanweeri at yow ak ñi toog sa ñaari sox yi nga toggal euh, lan mooy secret bi ba mariage yi léegi mën a mën a durer lu yàgg nga ni kii def naa moom ñeent fukki at kii def naa moom fanweeri at ban secret nga ñu mën a livrer tey ci xale yi ñu dégg ko pour xam ne sëy du bis bu nekk lay neex su ma dégloo ci li nga wax ak sa aawo nga nekk ko ak sa nawle yi nekk ak ñoom fii te xëy na lépp xëyul mel nii donc lan mooy secret Euh, gudd fanu sëy boobu sëy yi ngeen sëy nii. secret bi mooy jigéen jë dafa fey jigéen ja. dafa fay. Mm-hmm. ba mu fayee dem kër baayam. Mm-hmm. baayam ne ko lan nga jotee ak sa jëkkër. Mm-hmm. mu ne ko papa sama jëkkër li ñu jotee barewul. ñaar rek la. mu ne ko lan ngeen jotee mu ne ko damaa doon tool te sama jëkkër doonul muñ. doon muñ waaw dafa am lu ma doon ci sama ndey mhm. ci sama jëkkër doon ko ci bàyyam mhm. mu ne ko lan nga doon ci sa ne ko tooñ mu ne ko loolu lu mu ci bàyyam mu ne muñ jigéen moo war a tooñ jigéen moo war a góor moo war a muñ loolu tax ba mu ne ko waaw yow loo jote ak sa jëkkër da ko ne sama jëkkër li ma jote ak moom mooy dafa am lu ma doon ci sama ndey te moom doon ko ci bàyyam mhm. mu ne ko loo doon ci sa ndey mu ne ko tooñ laa doon ci sama ndey mu ne ko yow ku góor ki lu mu doon ci bàyyi lu mu doonul ci bàyyi mu ne ko muñ la doonul ci bàyyi muñul waaw muñul loolu moo tax ma ñëw tey tey kon da bëgg a wax ne sëyu léegi yi daal li nga xam ne moo ci indi rek xërëx lu bari mooy jigéen bii nga xam dafa saxoo ñu def mën a tooñ góor war a muñ ndax loolu rek moo war a sëyu léegi yi guddatul fan sëyu léegi yi yàggatul ndax loolu rek nga foog ni moo moom moo yàq sëy léegi yi xam nga sëy hmm. dafa nekk loo xam ni dafa discret. dafa discret. waaw. Mhm. parce que yar ci boppam. Mhm. ba mu demee ci papaam di wuti jabar. yar yar moom yar. Mhm. bàyyi ba da ko di demal takk teggin. ba mu takkee teggin ba pare. mu ne ko bàyyi kan laay may njëkkee mu ne ko may ko ngor. ngor waaw. mu am doom ne ko ku ma koy tuddee mu ne ko muñ. ko ah ah bàyyi nga tànnal na ñeent yooyu mu ne ko. yar ak teggin ngor ak mu moo yor sëy moo yor sëy moo yore si mhm. dangay ngay teg ku yaru yow ni ko teg yow da ngay yaru mhm. nga fekk moom teggin mu toog ne nga takk teggin mhm. soo taggee teggin ba pare nga fab njëkkee nga may ko ngor soo amee doo tudde ko muñ boo yaroo takk teggin ngor ak muñ lal sëy bu fu ne mën naa faa dem loolu mën naa yoru muñ wax ma laa takk wax <laughs> nga dëgg léegi nag da ngay gis age euh, biraan li ma déggee sa wax bi ngay doog a tàmbali ci koo xamante ne bi nga koy jël sa dépense matul woon amoo woon ñaari néeg yu baax yu ko dugal du laal ba du du laal ba du benn confort kooku toog fa ndax léegi ci jamono yi xale yi léegi ndax loolu léegi dinañ ko nangu sax ba di fa toog may xaar di fa am doom wala ñaari doom. waa xam nga jamono moo toll foo xam ne nit ñi dañoo wax ni. jamono daa soppeeku mais jamono fa mu nekkoon ba nekk ma nga fa nit ñee soppeeku. nit ñee soppeeku. waaw mais jamono soppeeku. Mhm. waaw sëy su yàlla dogalee nga gis ki nga bëgg mu bëgg la yow ci sa jëmmi bopp soo jiitalee intérêt doo dem moom it su jiitalee intérêt doo dem. Mhm. parce que intérêt la rek. Mhm. góor dina gis jigéen takk ko ngir am amam. ngir am amam. am kon góor gi dafa takk intérêt. jigéen nit dina gis góor sëy moom ngir am amam dafa sëy ngir intérêt mm-hmm. ca am ka gis ñàkk koy dàq ca lu mu yàgg-yàgg dana ko dàq mm-hmm. ca li ngay dàq lépp li ngay dàq ca doo ko dàq booy daw dawal ndànk ca li lay dàq moom lu mu yàgg-yàgg dina la dàq parce que ñun ñii ñëpp kenn ku ci nekk dégg nga maam àddina ngay dàq ca doo def àdduna ca kenn ku ci nekk dégg nga lay dàq ca lu mu yàgg-yàgg dina la dàq kon gore rek moo baax ci sëy gore nag juddu la bu jikko. juddu la waaw juddu la gore. Hmm. juddu la bokk la du jikko. parce que yàlla mi nga xam ne moom bind yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni mu koy woy neew ko Abdoulaye sa baay neew ko Aminata sa yaay neew ko it Quraysh nga bokk. Hmm. ay naka laa laa xulqin asim la ko wax jikko rek la ko woyee. yow ndaat maam faama day nekk sa yaay. Hmm. di góor góor gi alaaji bay di sa baay di góor mais góor ci boppam. juddu la gore nag jikko la boo xam ne nit a koy def ci boppam gore nag amul wét amul wétli boo wéetee da ngay gore boo wétli koo da ngay gore da sa jëkkër su amee da ngay gore gore nag bu fekkee ni si dem naan nit góor day góor ci ci ngor dara góor day góor ci dara loolu kontewul góor fu mu góor fulul ci ngorom amul sens waaw parce que am ak ñàkk ñoo fi nekk jamono bi ma gis xale yu jigéen yi danoo nangu la xaar. danoo nangu la xaar. nangu noo xaar. Mhm. man mbir mi fekk ko fa. tooba saxal rek baa ma sulli dama di ji tey nga sax tey ma lekk la tey rek. waaw léegi nag sëy moom da ko fa na da nga ko fay xaar ba mu fekk la fa ndax jigéen sàcc la. jigéen sàcc la. sàcc la waaw. saa yu nu ko mayee porté nañ suñ ko mayee takk ko daal. waaw porté nañ ko plainte. bu sëyee kër jëkkëram nag tëj nañ ko kaso bu juree doom nag jël na avocat moo koy tëj ba amati ko. mais ce que léegi amati na xale yi xaar nañ fa loolu parce que wax bu rëy nga wax wax boo xam ne dafa war a servir leçon ci képp ku jigéen nga toog di sëy mu ne jigéen sàcc la. jigéen suñ ko mayee sàcc la. su demee kër jëkkëram. tëj nañ ko tëj nañ ko kaso. bu juree doom jël na avocat. bu juree doom jël na avocat. moo koy tëj ba amati ko. moo koy lay wala macha allah lawlu cat mais bëgg naa laaj tey jigéen ñi nga toogal ci sëy ni mu mettee ñoom ñu ànd ak yow di la mu ñëw kenn ku ci nekk daje nga ak ay guddi yoo xam ni soo amul woon yar wala nga am fit wala nga am yaay jula fa toog loo kon ba tey daw nga te léegi li ëpp ci yàq sëy bari mokk na ci wujje xale yi nangatuñu wujje bëggoon naa laaj sax ma ma wëlbati ko ci at may jaga ba xam bi wujj ñëwee noo ko noo ko noo ko dundee noo ko dundee pour mën a toog ba ba keneen fekk la fi ba seen i njaboot ànd nekk benn nan nga ko dundee. asalaamaaleykum waa Sen TV Adja Ndao maa ngi lay nuyu. Hmm. di nuyu sama doom yi nga àndal. Hmm. di nuyu suñu directeur El Hadj Bougane. bu hmm. bëggee yàlla ko yàlla yeggale. amiin ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. amiin di gërëm sama góor gi nag. macha allah parti bi sa wàllu bi lañ muy góor goo xam ne macha allah dafa mën a mu a muñal jigéen. lool mën a téye jigéen lool. Mm-hmm. mën a téye ay ay soxnaam mm-hmm. ndax boo amee ñetti soxna mm-hmm. macha allah te réeroo wu kenn looy wax ñëpp nga koy waxal kon duñu réeroo muy jub gi daal muy jub gi am ma jël bi daan jël ma Tiwaawan yóbbu ma ci ndumbe sekk sama sang suñu ñaan maam bokk benn bàyyi néegam ak sama néeg nekk bu ñu sarale bu ma génnee sama néegam laay dugg dugg ca saal ba ma ñëw kër biraan taawlu taawlu mu ni tuuf ni ndumbe mu ndaw mu jël ko boot man ko may naa la ko biraan ko may naa la ko ba léegi ma ak moom. benn armoire amoon ci kër gi. Hmm? muy Ndoumbé Diagne ndax damaa siis si benn lan laa lan laa fekk sama nekk Ndoumbé Diagne am lal ak coiffeuse ak armoire ma jël sama ñaari valise dugal ci armoire Ndoumbé Diagne suñu yére nekk benn. loolu xale yi ku ko bëggoon def lu gerte ma ngaa dina tàkk yow néegam sax boo fa jógee waxuma laa. suñu yére nekk benn suñuy dem ku njëkk a jël ku njëkk ubbi rek foo loo jot sol. Ah, bu ñuy fóot maa ngi moom ñu ne ñaari bi ñu fóotandoo damay jël ay yéreem ni ko mais loo tilim de ma boole si sama yére fóot buy fóot fóotkat ñu ne woon day loo tilim de te nag ni tamit ni Tiwaawan nag may dégg ku li ngi jaa nag may dégg te nag loo gis rek seedal tubaab fakal la macha allah ma nekk ak moom noonu ba yàlla def mu toogal ma Tiwaawan ma toogal ko Dakar bii biraan di liggéey indi ma Dakar ma ñëw sama doom ji nga xamante ni yaay may sama jaam muy Ndeye Fall mu fekk ma ci kër gii di daan yëkkati njëkke may ma doom ju mu am yaay la may wax am ci kenn ku may sàllalu même caat mi yaay la may wax nday Fall ni man nday yaay doo sama wujj sama yaay nga jël sa baax Malick nga xamante ni macha allah moom la taaw ak biraan may ma tax ma lool doom yëpp ma tax mais bu feebaree ki daal sama ginnaaw sa yaakaar ni yaay frotté ma yaay diw ma. loolu am na secret biraan biraan dinaa ko laaj secret bi. loolu man nag moom day fal libéré ma ak dabaax. doom yëpp nag ba ñu ma takkas boppam libéré ma ak moom. bu entré hôpital maay fanaan bu feebaree sama ginnaaw lay jàll. mu bàyyi maan njabootam nag. waaw Naim lii jaaxalu leen lii lii ci jamonoy tey ji nga xam ne soo tuddee wuñ ci sax àddina tukki. Ginday dama la bëggoon laaj rek ma ma wëlbatiku ci yow bala ma ñëwaat ci âge bi mu jox ma secret bi dama bëggoon xam yow naka nga dundee. sa nekkin ci biir kër gi ngay xale ñu takk la nga ñëw fekk si sa wujj ci biir kër gi naka nga ko dundee ak nooy nekkee ak moom. merci laat di la remercier ci choix mhm. euh, sant yàlla julli ci yonent bi sant samay jur sant sama wasila suñu xalifu général de Tidjane alaaj Mansour alaaj yi sëriñ Bay si Mansour di sama xarit na ndigaay Mansour Seck mhm. di sant nag suñu borom kër bii mhm. man Ndoye di ko ñaanal fan bu gudd ànd ak wér ñun ñëpp dañ di ay doomi Tiwaawan bokk genn bokk na ndax euh, Ndoumbé Diagne mii suñu aaw ndey la ci man ndax mbër Fass Gueye mi doon denc sama yaay te yar ma ak maamam Thiané Seck ñoo bokk ndey ñu wëlbatiku nday njaga mii sama maam Abdou Ndiaye yar ko Abdou Ndiaye di sama nijaay euh, sama jarbaatu maam jànku sekk comme mhm. ñun ñëpp ñoo bokk Tiwaawan ñoom ñëpp ñuy samay ndey mhm. yàlla nag di dogal sëy indi ma ci seen biir ma nangu ko ak sama fukki loxo te xam ne fu yàlla tudd sëy foofu lay am mhm. donte bi ma biraan di jël booba jeune institutrice laa xale bu ndaw di doog a dugg ci jàngale di jàngale piir xaw ma woon koy biraan sëñ Aliou Niang sama sëriñ bu baax ba moom ma may biraar dama jékki-jékki rek ñu ne maye nañu waaye nag ci ndigal ak kilifa ak am kilifa ak ñu yar ma di doomu Tiwaawan man nangu sëy bi ak sama fukki loxo juróom-ñeent moom nag mu bëgg ma lool la def ma jigéen ma te bëgg goo gis léegi koy fay te tey ndaxte nag Tiwaawan yaatu na gone jigéen yi bari nañ fa waaye moom ba mu ñëwee di ma takk si ni ñetteel la bëgg daf ne takkuwul takku ma man sama yaay la takk Maguette Diop may mag umu sekk mooy sama yaay ngir sëy bu rafet bu mu sëy yàlla def nag mu fekk sama mag si lay njaga bi ma ñëwee wax dëgg yàlla fekk naa ko fi ak njabootam waaye nag daf ñoo boole ñun ko baax na ku ragal na nekk naa di jàngale tëngéej bi ñu ma affecté fii da baax moom muy wax moom laa ko féetale moom moo liggéey la tax ma féetale ko ko wallaay wa quraanu karim du ma waxal kenn lu ma defalul dama fi daan ba dabaax aaya bàyyi fi sama ay aw ma jànq mu boot dabaax di togg di ma toggal sama ay su gaz ba jeexee mu jëndi mat di ko togg ci garage bi ci suuf defal na ma loolu kon góor la dëgg la lu ma jaani aaw ba ca tiwaawan di sama yaay ñoom ñëpp ñu uf ñoom ñoo ma xajal <laughs> ndax parce que lu ma nekk nekk xale lu ma bëgg-bëgg sëy buñ ma xajalu woon du ma fi toog. dëgg la doo placé kon sant naa leen gërëm naa leen sant naa seen njaboot ñoom ñëpp ndax man ñoom ñëpp ma bëgg. jërëjëf. léegi Birane dama bëggoon ñëw foofu Ndeye Fall tëjee rek man laaj la yow nga xam ne yaay seen borom kër euh, naka nga def ba lii macha allah mun a am parce que bari na ci kër yoo xam ni boroom kër gaa ko yàq léegi ban secret nga ñuy jox ni moom nga macha allah mën a yore sa njaboot tabarkàlla yàlla na ngeen dem ba gën a ràmmaan ba tey ñuy dundee nii en harmonie ci jàmm ak salaam naka nga ko naka ban secret nga nga am. ajaratu ndaak secret ma am mooy kafagree. kafagree. kafagree. ku ma ci nekkal instauré naa ci jabar ba képp ku ma ci nekkal di téléphoné sam sa wujj bu ne ma sa bu ne ma foo nekk man la maa ngi àjjana ca sa wujj laay nekk nag waaw. bu ma nekkee fii ci Ndeye Fall. waaw bu ma Ndeye Diagne wooyee dama ne nag ku toppal fële maa ngi àjjana. Mm-hmm. bu ko defee kii xam nga lu muy wax. ba ma paree dama ko jox téléphone bi mu daal di ndëmbee kii xam nga lu ko dal fu mu nekk rek mooy àjjana day wax lu ko neex rek ñëppay àjjana. ndeysaan. ca noonu bu ko waxee ne la amee ñëppay àjjana su ma nekkee fii tamit. Mm-hmm. bu ma Ndeye Diagne woowee ca Dakar Tivaouane bu ma bu ma woowee bu dee wax man bu ma kii woowee dama naan ko maa ngi àjjana ca Tivaouane. ku ma ci woo rek man fu ma. nekk nga muy àjjana fu ma nekk rek mooy àjjana. mooy kafaree daal mooy sa division kaf ak ree damay di ree samay njaboot damay kaf ak ñoom di ree du ma dikk di caractère baa may aju kenn ku ci nekkit bu may wax yow li ma bëgg a wax yow damay wéet yow wax ak yow. waaw. Mm-hmm. ñu nekk nag ñoo xam ne sii li ma ci gën a intéressé mooy danoo déggoo fa tabarakallah macha allah na góor góorgóorlu ci sëy ku ci yàlla diggagul ci sëy doom. neewul ku am jëkkër ma may la doom neewul ku am jabar ma may la doom. dëgg la. yàlla àjjana la digg ci sëy jigéen joo xam ne si parce que suñu borom tabaaraka wa taala moo ni ku amul sa ngërëmal jëkkër man yàlla doo am sama ngërëm. ku amul sa ngërëmal ñaari wayjur man yàlla doo am sama ngërëm. ngërëmal yàlla na nga dàq lépp kon boobu góorgóorlu leen ci sëy yi. kenn ku ci nekk xoolal quatorze million d'habitants ñoo sekk senegal ñoo fi nekk quatorze millions yëpp. kenn ni ci yoxet jikk fekk la ci 14 millions yi mu tànn la ne la yaa ba moom yow laa bëgg. Ah yow it 14 millions yëpp nga fekk ko muy góor nga di ko yow laa bëgg. Mm-hmm. kon yéen ñaar war ngeen a góorgóorlu ba seeni noon duñ leen ree. te sëy boo gis nag ci àddina am na ñu d'accord am na ñu d'accordul kon nag ki nga xam ne sii dégg nga maam dañu koo maye am ñu d'accord ñu d'accord war naa geer ak bakkanam ba moom ci jëmi boppam képp koo xam ne sii ci àddina d'accordul sëy bi doo am dam ku ci d'accord am dam jërëjëf Aris Birane kontaan nañu ñuy jox rek di daje suñu mbokk téléspectateurs yi beneen yoon rek yal nañu yàlla may ñu fekk ak tal ay Saint-Valentin yu bare bari mbëggeel du benn bis rek mbëggeel àdduna la léegi nag macha allah Birane dañ fi indi woon ay yoo xam ne suñu suñu partenaires yi ñu àndal tabaarkàlla macha allah géej fi texte bi ah macha allah di suñu partenaire boo xam ne dafa ñëw tey ci feetu Saint-Valentin di bégal yi nga xamante ne ñoo bëggante ak seen waay ñoo la offrir bazin bi ci ci ci bisu saint bi âge biram ñu ngi nii ñoom façon bu ne ñoom Moussa Daba macha allah façon bu ne la ñuy jaay bassin boo bëgg rek moom lañuy jaay seen adresse mu ngi nii ku ko bëgg rek nga ñëw foofu ci ñoom mayit bu soobee yàlla naa ko jaw soo ko bu rafet dinaa dem dabaax couture mu ñawal ma ko cër yéen angal bi nga si jàpp waaw am bi tam macha allah gamme de la boo xam ne xam naa ne soo paree ba nga génne ko seet ko dina la dina la dina la dina la dina la intéressé yow ak madame ay parfum mu ngi fii ay toccamikaay ak yi fi jigéen yoo xam daal macha allah tam suñu partenaire moo la ko offrir. i nag macha allah ji di CSB ah moo la offrir téléphone Samsung bi kii Galaxy A03 mu ngi nii tabarkàlla macha allah ànd ak ay bagages am. ànd ak kii moo nekk ay hectare mag sa ay chargeur ah macha allah ci boole kii defe naa fulaar la yii incha allah xam naa ak sedd bi big la ma ak porte clé ci di CSB ñoo la ko jox ñoo la ko offrir macha allah itam ñoo la ko jox mën na def sa ndox bu sedd booy dem Tivaouane ñu defal la ci tuuti jus dafa ko ci ginnaaw oto bi macha allah dina ñëw tabaarkàlla macha allah ak bouquet fleur bi tabaarkàlla ci Saint-Valentin bi ñoo la ko offrir kontaan naa waaw ñuy gërëm nag macha allah suñu yi ñu àndal ci émission bi taxawuñu teral suñu suñu invité yi jox leen bazin tabarkalla macha allah indi fi ay bazin jox fleurette les roses d'Antoine fleuriste bi macha allah laaw la cat indi ñu ay parfum love mi macha allah indi ay jili CSB ak portable Samsung ak ay bagages yoo xam ne dañ ko offrir suñu suñu invité bi ñu ngi leen di gërëm yéen ñëpp di ñaan yàlla li ngeen liggéey barkeel yàlla bàyyi leen ak seen TV suñu collaboration yàgg-yàgg àll fi bi jërë ngeen jëf. couple yu mel ni nag Cheikh. Mm-hmm. Ah, gis naa ni euh, xale yi ñun ñii ñëpp war nañ ci mën a euh, mën a jànge mm-hmm. ndax euh, c'était pas évident li suñu papa wax ni doon na ànd ak première dame. di ànd ak moom di lijjanti dépense bi mu toog di ko xaar waaye li mu wax ni euh, takk euh, teggin yar bi mu demee euh, di seeti papaam mu ne ko da ngay takk teggin boo amee doom tuddee ko may njëkke ngor boo amee doom tuddee ko muñ yooyu defe naa ni moom mooy ay valeur yoo xamante ne nii xëy na moom moo xaw a manqué ñenn xale ñenn ci xale yi ñi ñu ko sañ a wax ñoom ñii boo leen di déglu da ngay jàng lu baree bari ci sëy xam ni c'est pas évident ku muñ rek bés dina ñëw nga muñ parce que moom moo ko yóbbu màkk moo yóbbu yaayam màkk te loolu ku muñul doog fa fekk xam nga àdduna dafa am ñaar ñu ko seq muy mm-hmm. góor ak jigéen mm-hmm. une dame de valeur et euh, un homme de valeur mm-hmm. teggin ak worma. Mhm. te eh, te it nag yàlla da doon def ni mag ñi bu njëkk daaw ñu leen may ñu beru. Mhm. dañ leen daan may soxna ñu nekk ndoog.